waxante dëgg et que la réalité mooy mënuñu concevoir logiciel bi daq ay électeurs ne ñii duñu ay électeur alors que boo demee dans la réalité ce sont des électeurs moo tax ma ni un logiciel vraiment qui refuse de reconnaître la réalité kooku c'est pas un bon logiciel surtout nag un logiciel boo xamante ni c'est un élément euh, fondamental ci élection présidentielle lu ñu jëm donc je pense que le Sénégal aussi waroon na dépasser di arriver waat véritablement à ce là donc moo tax ma ni toujours j'ai l'habitude de dire que dafa mel ni logiciel bi c'est un logiciel taillé sur mesure commandé paramétré hmm? paramétré taillé sur mesure donc loolu mooy la réalité des choses te te dinaa si ñëw comment concevoir Mary Teuw Niane candidat ñu ni kooku du électeur mhm. comment concevoir les élus locaux man sax les élus locaux ñoo ma gën a intéressé certains élus locaux yoo xam dañ leen fal ba ñu nekk ay conseil euh, logiciel bi ni Mary Teuw Niane Ben introuvable mm-hmm. introuvable ci fichier bi. mais loolu daf ma jaaxal dañ waxante dëgg aussi. mais ñoo xamante ni dañ dañ leen a fal. ñu ne introuvable. dañoo voté ñu fal leen <laughs> logiciel bi ne gisu leen xam nga aussi tamit des des fois njortu ci njortu dañuy xaw a nangul li Mimi Touré doon wax keroog ci point de presse am bi ne est fichier bi ñu yor fichier bi est-ce que mise à jour nañ ko est du fichier de te bu fekkee loolu am na bu fekkee am na si position la am na mooy da lay leer ni primo votant yi moom bu yeboo ñu xam ni moom duñ bokk si élection présidentielle duñ ci bokk te loolu nag ñi muy impacté véritablement mooy. li nga loolu nag bu amee on se demande la question ban fichier lañ yor. la ñuy fiyewu. xam nga on peut teg ba pare li nga wax ne ba pare te posé wu la question de savoir kon ban fichier la ñuy demee. waaw moo tax ñun ñëpp nag dañoo war a poser des <laughs> interrogations bamba très légitime par rapport au parce que lii lépp li ko indi mooy. parce que au au au départ on savait on savait pertinemment primo votant yi dinañ bëri lool. ci dinañ bëri xam na xam nañ ko ci élection yi. xam nañ ko a une population. jeune mais mais mais Mouhamed xam nga ñun. Euh, euh, xam nga ñun tamit aussi. des fois gars yi dañuy mel ni dañuy jàpp ni état bi li muy def nii yëpp ay erreur la tayu ko mais du ay erreur ñoo ko tay parce que un régime bu nga xam dafa bëgg toog bëgg fi sax di wut keneen ku ko remplacer pour ñu sax fi. dama ne lii man mënu bu doon ay euh, erreur ñu corriger ko depuis bi bi ko bi bi opposition bi defee ay interpellation ci dialogue 2019 bi nañ waxante xam nga le conseil dañ leen jaxase ak askan wi parce que le conseil constitutionnel li muy àtte li mu téye tey di ci àtte ni candidat bi war na jàll warul jàll mais dañ ko taillé sur mesure jox ko te ki ko taillé sur mesure c'est le ministre de l'intérieur mais tey boo demee guide électoral bi gisoon ngeen fi temps yi arrêté boo xamante ni le ministre de l'intérieur ko génne woon ba ci format fichier yi ñoom ñoo ko définir léegi nag conseil constitutionnel bu ñu leen joxee ñoom ca la ñu sëngu nii ci la ñuy atte candidat bi kii war na jàll waru kii jër jàll lu bëree bëri nag am na loo xam waxtaane nañ ko si dialogue bi mais dialogue boo xamante ni corps électoral bi ñi seq élection kii kii yëpp candidat yeeg coalition yeeg yëpp nga xam dañu seq élection bi tooguñu waxtaan am ci consensus ñii nga waxtaanal ñii waxtaanoo ak ñoom xam nga yooyu aussi tamit c'est des anomalies yoo xam dafa dem ba dafa feeñ ci ci ci processus bi man je ne peux pas considérer ces choses là comme des erreurs mais man damaa jàpp ni ñoom ñoo ko tey te en réalité aussi dañu tooñ candidat yi parce que mënuñu concevoir aussi nañu waxante dëgg Bougane avec tout le travail acharné bi mu def sur le terrain politique nga ni ko yow say parrain matul parce que tout simplement bu fekkoon ay parrain matul ñu ne ay parrain matul mais ay parrain mat na logiciel bi ñu commandé moo nangul reconnaître ay parrain wam c'est ça la réalité des choses ñeneen ñi si des nga xam c'est des candidats moins populaires ñoom ñoo am matal ñoom ñoo mën a jàll ñoom ñoo mën a dem compétir moo tax nag aujourd'hui man pour man la processus dafa war a taxaw ñu xoolaat ko aussi parce que ci ay élection présidentielle lañ jëm te loolu dafa engagé toute une république il faut ñu xoolaat mbir mi bu ñu sacrifier ay candidats tamit. parce que ñu taxaw tuuti quoi. mais ñu taxaw def xool quoi yeeg ak euh, ces yi nga xam te sax. waaw euh, ni nga ko waxee porte na préjudice. certains candidats mais ñu bëri te indépendamment de leur volonté ah. mais mais xam nga xam nga xam te ne nii ñoom booy xool ñu ci bari du ci ñoom. xam nga bu njëkk ba sax dañ doon dañ doon jàpp ni affaire de positionnement la mais Thierno Alassane Sall boo xoolee ci tirage au sort bi même ci deux kii kii bi bugaana ko gën a gën a jege te pourtant moom jàll na pour pourtant position bu sore la nekkoon kon affaire yi nekkatul problème de positionnement. moo problème mu matal nga wala mataloo la mais en réalité aussi ak démonstration man yi ma gis keroog ñoom ñu def ko nii démontrer dugal ay kii kii bi di si yokk ay aaw ay lu ñu xamul mais loolu tamit aussi pour des élections présidentielles pour des élections bamba présidentielles nga xam daa engagé toute une république tout un pays ñuy wax ay problème logiciel léegi nan nañ sacrifier ay candidats légitimes légitimes yoo xamante ni dañu mener un travail bu am solo sur le terrain politique tey Bougane je ne peux pas concevoir que matul ay parrain am na zone yoo xam bi mu fay dem ci Sénégal di di jël ay parrain foofu bëriwul candidat yu fay dugg bu doon nag lépp sax dafa concentré wu si circonscription ñun ñii bi ñu nekk nga ni ay doublon la risque de doublon la mën nañ ko admettre mën nañ ko nangu mais nañ waxante dëgg bu ñu waxante dëgg rek xoolante bët ak bët vraiment nga xam ne nag mbir mi lu ñu war a xoolaat la nañ taxawaat xoolaat ko parce que bu ñu leen sacrifier aussi. c'est ça on ne peut pas comprendre ñu leen di sacrifier. et on a ce sentiment Euh, bu bu bu biaisé depuis depuis le début certains le pense ñenn ñi jàpp ne ak li xew léegi ak euh, candidat ñu éliminé ak ces erreurs et couacs erreurs informatiques et couacs il faut que nag conseil constitutionnel à un moment donné mu taxaw ñu càmbar jafe-jafe yooyu ñu ñu mën a rétablir ñu rétablir leen. justement xam nga Mohamed loolu moo si gën a doy waar mooy li ñëpp di wax boobu ba léegi nga gis gars yi di ko wax si plateau yi nga gis euh, candidat yi nga xamante ne dañoo demoon déposer yi ñu rejeté wala ñu invalider leen. ñoom ñëpp ñu koy ñu koy ñaxtu ak liñ fi wax yëpp si plateau yi nit ñi sénégalais yi même dem ba di am ay jafe-jafe si nan lañu defee parnage bi li si gën a doy mooy boobu ba léegi conseil constitutionnel dafa def pat pataaral mooy ce mutisme du conseil constitutionnel dafa jaaxal keneen ku dul man parce que tubaab bi dafa wax ne kii na dit mot consent et man euh, je m'attendais à ce que ñoom ñu génn sax au moins ne serait que pour le respect Euh, des citoyens ñu joxe ay explications ay justificatifs pour montrer que euh, lii ak lii moo tax peut-être que ñii ak ñii mënuñoo jàll ci parrainage bi. Mhm. mais boobu ba léegi gis ñu benn yoon benn communiquer conseil constitutionnel pour donner ay explications ci inquiétude quelque sénégalais ak quelques candidats yi communiqué bi ma fi gis mooy bi muy joxee list li nga xam moom mooy candidats yi génn provisoirement e loolu tam aussi moom a jaaxal mooy ñaata candidats yoon demoon déposé ji ci. parrainage Ndeye euh, su ma juumal jege woon ay quatre vingt seize xaw ma quatre vingt treize quatre vingt treize mhm. ñu ne après vingt et ñoom ñoo jàll ci parrainage bi mais yeneen candidat yi nga xamante jàll dañoo war ñoom aussi avoir les mêmes inquiétudes que Bougane Gueye Dany avoir les mêmes inquiétudes que Mimi Touré avoir les mêmes interrogations que Abdourahmane Diouf mooy les autres candidats qui ont été recalés mais man gisuma li nga xamante mooy union autour de benn union sacré pour que ñoom ñëpp ku nekk si yow nga ne man lu tax yow man bëggoon naa ma explication lu tax ñu invalider ma. mais def nañ collectif des recalés ah. effectivement loolu bëgg naa ko. man voilà ah, bëgg naa lu mu gën a yokk rek parce que xamu tax parce que nit ki au moins citoyen bi la moindre des choses mooy say inquiétude say interrogation say questionnement nga am si ay réponses. loolu mooy si diggante yow administration lu mu lu mu métti métti métti métti loolu mooy si diggante yow administration par respect des citoyens am nga droit nga ne ah léegi d' accord recalé ngeen ma ah d' accord dafa ngeen ma refus mais motif. dina am procès verbal. <laughs> merci beaucoup parce que lu mu do metti métti métti tey même citoyen bi euh, boo demee tey Serigne ambassade boo xam foo mënti déposé même bu fekkee dañ la réfugier le visa sax au moins dina la jox li nga xamante ne mooy comme li nga wax benn motif boo xamante ne lii moo tax ñu la la. may ñu parce que dañ leen di jox PV ci moment bi de. buñ génnee noonu dañuy am procès verbal d'accord c'est bien. léegi nag li li wax ji mooy comme waa conséquence nu wax mais loolu mooy tax après euh, clamé bi dina dem si li nga xamante ne mooy ay union ah, européenne war wax nag. dina dem si ay CEDEAO parce que danoo war a wax nag. parce que tey xamu tax man ma soxla euh, CEDEAO mu wax si lii euh, man dama damaa xaw a am njàqare si à l'international nan la ñuy xoolee nan la ñuy xoolee Sénégal bi nga xamante ne dafa crier fu ne. suñu démocratie ñun nga xamante ni bokkoon si dëkk yi nga xamante ne yeneen sous région dañ ñoo jox cër parce que ñun élection ñëpp dañuy xaar dëkk bi tàkk mais chaque jour comme ni nga ko doon yàggoo si plateau bi day fàttali ko wax fii ñu koy wax mooy ñun bu ñu defee élection dimanche si nga xamee ne lu mu métti métti mën nañoo waxtaan ba déggoo ba nekk vers l'essentiel après ñu continuer CEDEAO boobu noonu moom moo toogoon doon décrier li nga xamante ne mooy parrainage bi CEDEAO boobu maa ngi koy xaar peut-être que doon naa bëgg ñoom ñu addu si li fi xew doon naa doon naa addu aussi li nga xamante ne mooy pourquoi tey benn parti politique bu mel ne tey euh, waa PDS ñu soxla woon li nga xamante ne mooy des experts de l'Union européenne ñu ñëw si wàllu fichier bi ñu gëstu si doon naa soxla waa Union européenne boobu ñoom ñu joxe seen avis si li nga xamante ne mooy li fi xew moo tax peut-être que Bougane ak ñeneen ñi ak Mimi Touré ak Abdourahmane bu ñu demee di ko clamé waa Union européenne c'est tout à fait normal c'est daal dans la logique des faits mooy xel nangu na ñooñu nan la ñu war a parce que tey est-ce ñun bu ñu